dawal ta gaaw mu gàttandu la yërmaandeem ji bari na adduna bi sori na la sori na la sori na la yàlla mi jege na la jege na la jege na la waaw أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسرحي صدري وأسيري أملي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه الحولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم حكيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد إن الحمد لله بوك ني dellusi waat si taxawaay bi rek si fayda yi ginnaaw بي ني سانتي نيب زيار نيب dellu si taxawaay bi rek taxawaayu tey bi taxawaay bu njëkk bi uktub kursi yu mooy ayatul kursi yu ngay bind benn yoon teg si laqat jaakum benn yoon teg ci suuratul masad yi mooy tabbat daal benn yoon bu si nekk benn yoon rek nga koy bind soo paree da ngay ut juróom-ñeenti xeer wala fukki xeer ak benn wala fukki ñaar fukki xeer ak benn xeeru carrière yi waaw moom ngay jël boole ko saafara bi baxal ko ba mu bax nga teggi ko ba sa yaram nang ñeme ko nga daal di koy sangoo guddi sangoo ko juróom-ñeenti guddi nga lii soo koy sangoo da lay raxas da lay aar ku la def dara rek moom fi mu toll da ngay da ngay gis ne kii def na la dara parce que day am problème dee dee sangoo rek ne pat jàpp sa njàmbur bu def kenn dara dee rek ne pat ku la laara yow di nga ko yërëm waaw ba pare day raxas di nekk sa yaram da lay raxas ba pare dafa la protection ba nga xam ne ku la laal moom moo tooñ boppam del sangoo rek ne pat bàyyi rek lu waay def rek moom fi mu toll yow di nga yërëm moo nekk noonu ñaareelu taxawaay bi kii maa ngi ñëw si siru siru latif la siru la ba nga xam ne dañ ne kenn du ko jàpp ren bu déwén te teddoo nga liggéey ko ren bu déwén te yow teddoo santoo yàlla kenn du ko def waaw siru bi nii lay doxee mooy Fatiha gannaaw siru nag suñ la ko joxee chaque jour dañ dul indi ubbeekaay mais ubbeekaay chaque jour Fatiha istighfar salaatu ala nabi kooku moom ala kulli kon soo ubbee faatiya istighfar salaatu ala nabi mën nga def 100 mën nga def 70 nga indi Fatiha benn yoon yaa latiif 129 indi Fatiha ñaari yoon yaa latiif 129 Fatiha ñetti yoon yaa latiif 129 Fatiha ñeenti yoon. yaa latif 129 faatee juróomi yoon yaa latif 129 faatee juróom benn yaa latif 129 faatee juróom ñaar yaa latif 129 faatee juróom ñett yaa latif 129 faatee juróom ñeent yaa latif 129 nga doog a indi talsam bi nga doog a indi talsam bi waaw yaa wa tey tamu fawaasin nga liggéey ko 129. yaa wa tay tamu fawaas yaa wa tay tamu fawaasin nga liggéey ko 129 nga doog a indi ñaan bi allahuma altuf biya fii tay siirin kulli amrin asirin fa inna tay siirin asirin yasirun alayka wasaluka yusra wa najata wal afwa wa muafaati fii dunia wal axirati innaka la kulli cheyin xadir nga def ko neuf fois kii daal gis nga ku si jàpp ku si jàpp di nga tedd yàlla na jox teraanga di secret secret mag la mag yi la waaye ñi ko mës a yor ñëpp dañu am teraanga hmm. waaw kenn du ko liggéey ren bu déwén te teddoo waaw léegi nag soo koy liggéey sarax bu mu la génnee na nga ko génnee mooy affaire bi waaw sarax bu mu la won parce que nii suñ la ko joxee ni duñ la jox sarax mais moom moo lay wax sarax yi latif en prix la plupart non lay doxé mom suñ la ko joxee ni sirou bi da ngay liggé mom mom mo lay lo sarax ni kumu génné lo sarax na nga génné ko soko défé rek di nga tedd ben yon nga koy def par jour quoi waaw par jour dang kay def sa kiné dang kay def sa talsam sa sam yi graw dé ben talsam rek mo ci def muy ni li ñaan la li moy ñaan bi ñaan ñaan bi ngay def juróom-ñeenti yoon waaw leer na leer na ñetteelu taxawaay bi alam nakun nutfatu min maniyyin naa kii kii dafay dox si wàllu kàttan hmm. comme ñi nga xamante ne xëy na seen kàttan wàññeeku na wala ñu xaw a ñu xaw a kii suñ nekkee si biir néeg bi maanaam daal solo biñ solo bi ñu war a am daal duñ ko am kii bind ko nii di ko sangoo di ko naan xol bind ko di ko sangoo di ko naan xol bind ko di ko naan di ko sangoo xool rek nooy def ak nooy def ak kii nooy def sa kàttan da delloo ba fi mu toll nii vingt ans vingt ans la lay jox kàttanu vingt ans. Ah. del sangu di naan rek waaw. Ah, di naan sangu di naan. ñetteel taxawaay bi sangu naan. waaw sangu naan ñetteel taxawaayu reenu saab saab reenu dugóor da nga koy baxal di ko naan kaas matin midi soir képp koo xam ne nga am ndigg wi metti wala oom yuy metti mm-hmm. wala tànk yuy metti utal lii di ko naan yàlla dina la may jàmm mm-hmm. ñi koy naan ñëpp sant nañu yàlla ti lii koo ko jox mm-hmm. dina la woo gërëm la parce que lii dafa bari ñu mu sonnal muy tànk muy ndigg muy óom buy metti utal ko lii bu baxal ko di ko naan matin midi soir mu xol su ko naanee une rek yow dina la woo gërëm la sant la reenu saab saab reenu saab saab waaw mu baaxal ko di ko naara nga xool kooku ko jox dina la sant waaw waaw waaw kon ma taxawaay bu njëkk bi da bind ayatul kursi benn yoon bind laqad jaakum benn yoon bind tabat yadaa benn yoon ut xeeru carrière yi boole ko saafara bi baxal ko ba mu bax nga teggi ko ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ko guddi sa guddi nga koy sangoo li si gëna baax na moy saa sangu rek nga nugal ko bu mu nugal nga sangu soo ko defee juróom ñeenti yéen sa bop yalla sa yaram dina set kula laal mo togn bopam di nga yërum ben yoon ñaaral taxaway mané ki siru la siru teranga la waaw ku bëgg tok ci si teranga jël siru bi diko liggéey ni mako bindé nga koy liggéey fatia yaa latif ben ba juroom ñent yaa latif mom du changer 129 la so paré indi kalsam bi ya wa tey tamus fawasin 129 indi ñaan bi juróom ñent yoon ku ci sax di nga di nga am teranga fi mané ne képp ka nga xam ne maanaam da nga nek ci négu sey yëg na sa carton dafa wàññeeku wala yaa solo ba nga wara am amoko bindal li di naan di songo di nga sante yalla kenn dula méré mere waaw ñetteel taxawaay bi dama ne képp ka nga xam wala omum wala ndigam mu ngi metti utal ko reen yii mu baxal ko di ko naan reenu saab-saab reenu dugóor mu baxal ko di ko naan kaas matin midi soir saabu ndekkee naan saabu añee naan saabu reeree naan dina am jàmm de tànk yuy metti óom yuy metti ndigg buy metti képp ku ko am rek jox ko ko mu koy naan nga xool loolu koy yàggul su defee une semaine dina la woone waa yow yow loo ma jox nii dina sant de kon mi ngi noonu foo naa leer na mu ngi noonu yàlla si yàlla def barke ko jël yàlla na ko jëriñoo allahumma salli ala mawsuuf bi juudi wal karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala